lii nga àndal tey ak sama sama sama jarbaat la man bëgg ak ñu ñett boole woon comme communicateur terrain fi mu Sénégal waaye nag yàlla yàlla dafa def ñu jikku ndax premier tour lañ ko fal 2019 yàlla nañ la fal premier tour ma ne ma ñëw rek egg xaar xaar ma ñëw tuuti rek ma dugg dama ni à défaut directeur temps on s'arrête le temps de donner au nôtre un peu de son temps c'est important bi ci des da am altruiste une dame qui a une, une morale de haut niveau qui a une dame qui a un sens aigu du réel et de l'humain un une femme boo xam bi yàlla dafa def du fomp du fomp du farfaroo du fomp pour poids wala. du xuloo du xeex du xaste waaye nag dama cette mine de douceur moo wax a tey Cheikh Aminou Touré la mais le granit étant bas li may def nag mooy tàggu la ndax def ñaari ñaari yoon yi nga fi jaar yëpp nee naa bu fekkoon sama épouse wàññi ko ana mbaa mbaa yéen a ànd waaw nay premier adjoint papam ci Sénégal léegi nag damaa bëgg bu rek dana daal di yorul ko ndax kër ga xaay rek ka fa ne. Thank you. la coalition Benno Bokk Yakaar candidat du parti socialiste candidat de de tous les autres partis membres de Benno Bokk Yakaar mbokk yi xam ngeen lu gën a kenn du dee sa morom ci biir Benno Bokk Yakaar noonu la ñu def dikk toog ànd ak Macky ñu naan kuy ne candidat ñu bare bare yëkkati seen loxo bi mu laajee ñi mu bokkal Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp muy Moustapha Niass muy man ak ñeneen ñi ñu àndal ñu ngi ko li nga liggéeyee ak Amadou Ba ak ñi ngeen jege yoo woon ci période bii ñun suñu war koo jege kon yow li nga mën a wax ci moom ak qualité yi nga mën a gis ci moom ñun gisuñu ko ñun ñun am nañu si ay qualité ndax yàgg nañu ak moom waaye nag yow mi liggéeyee ak moom ba jege jege yoo woon ak moom lool loolu wax rek dinañu xam ne loolu loolu mooy ñoom kaw ma yëkkati woon nañu seen loxo waaye Macky moom la choisir. bi ñu ko choisir. waaye maman insistel ci loolu insistel waaye ma ne insistel yàlla. mu investir ko au niveau de sa coalition. muy coalition au niveau de son parti d'abord APR. bi mu paree ma jëriñ. donc Moustapha Niass moo ci toog bi Moustapha Niass pare ak muy AFP man mii ñu jëriñ. benn bokk yaakaar tamit mu jëriñ. donc kii suñu candidat la ñun ñëpp amul woon werante amul wax amul yenn. amul lam-lame. donc Amadou yàlla na jub. am nañu fi yaakaar parce que sa yar mën na la convaincre. gis na ci sa capacité d'écoute moom beneen affaire te Sénégalais politique bu leen la bëgg. ci micro bi micro bi. beneen bi mooy ñun jaaxlewuñu bi ma duggee ci biir plan Sénégal émergent te tey plan Sénégal émergent dafa am avancé yu significative yoo xam ne daf koo ci développement réew mi te nga nekkoon ci une pièce kon tey boo diggee Macky am ci yow confiance ñun ñu am ci yow confiance Sénégal gépp boobu la kon bu ñu mën lu am yaakaar yaakaar ba ñu la soxla am rek ëpp na tey kon yal la yàlla may xel. yal na la yàlla may fit yal na la yàlla may wér boo toog ci ba léegi ci pour que le 24 mars ñu fal la au premier tour victoire bu amul benn law naa leen la. ñu ne Seydou Touba am naa fi yaakaar parce que maire yi ñu ngi suñu ginnaaw xam naa ne bu yàgg a yàgg ñu bari doom lañu bu ñu engagé woon nga xam ne moom la fi suñu doyen Samba Kanté wax léegi lu am solo la te bu soobee yàlla noonu noonu ñu la ko waxee noonu nga koy gisee. beneen bi mooy mouvement de soutien membre bi bu dëgg yàlla jàmbaar parce que daf doon dolli Macky léegi nag dolli na Macky Macky dolli na Amadou mais moom itam li mu jaajëf dama doon doon ne Macky mu doon yóbbu Amadou. Derissima félicitations jigéenu département bi nag yëpp mën naa wax ci seen tur man xam ne engagé woon nañu taxaw nañu te bu soobee yàlla li xam ne moom nga bëgg danga koy am yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def te mu jig la jig Sénégal kon Amadou defe naa ne wax bi jarul la bari lenn rek li ñu bëgg mooy jëfal ko jëf bi nag benn jour rek la muy dimanche jour boobu nag nañu ko considéré mu nekk suñu jour bi gën a mag ci at mi muy le 24 décembre ñu xëy naan ci dem élection bu leen déglu ku leen tooñ bu leen déglu lenn ba toogee di déglu yaa xam ne daf laa daf laa bëgg a yàqal jaru ko ñu daal benn objectif la ñu am par Amadou Ba au premier tour ñu bari nag wax dëgg ci dëkk bi waaye ay transfert la yoo xam ne yokk Amadou Ba yokk coalition bi mais yokk également Macky Sall kon yal nañu yàlla suturaal ba le 24 ñu révolution ak di ko nuyu communicateur traditionnel yi mais li ci des Amadou li may ñaan ñëpp daal mooy na ñu def proximité ba ñu daan def rassemblement baax na trop mais proximité dugg këroo kër dem ci marché yi dem ci gare routière yi expliqué nit ñi ñuy voyage sax ñu wax ak ñoom loolu defe naa ni moom moo jox Amadou Ba victoire te loolu wàllu ko mokkal nañu ko miin nañu ko Amadou jeunes yi dégg nañu li nga wax ci sa politique de jeunesse parce lu ngeen jot a doxal yow. dëgg la mandat te yaakaar naa jeunes yi wax dëgg yàlla ñoom ñooy force réew mi kon lu ñu jëmale si ñoom rek yàquñu ko c'est un investissement productif jigéen ñi la même chose jigéen ñi ko gis li liggéey ci marché yi marché hebdomadaire boo dem ci Sénégal jigéen ñi ko gis li liggéey ci kër yi bu kër yi neexee rek jigéen ñi la kon Amadou li ci des daal mooy doxal nga dem bul kees sa ginnaaw. dëgg la wax bi ko déglu bul tontu te xam naa ne bu doon gis sa nature. kilifa ci biir jàppal ne waa Louga li ñu liggéey ak yow. nga yàlla bu la gën a mars. amul la yow nga gis résultat bi.